téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm amaat mbégte ci beneen numéro urgence comme ni ñu koy defee saa su nekk ñëw ànd ak yéen ci loo xamante ni daf leen di soxal ni ki tey dañu fas yéene waxtaane loo xamante ni bokk na ci lu yitteel askan wi te ngeen di jànkoonteeg moom lu bare bare bare bari mu jëm ci wàllu infection waaye bi yoon dañu fas yéene waxtaane loo xamante ni doo leen ko umpale maanaam wax leen lépp ci li nga xamante ni moo di infection waaye bi la yoon dañ koy fas yéene laale ak li naan infection pulmonaire buñ ko waxee nag xel day dem ci loo xamante ni tey moo di poumon dinañ ci ànd ak euh, docteur aliw Niang moom xelam màcc loolu ci wàll wi bu ko defee dinañu daal di leeralal ñu dugg ak yéen ci waxtaan wi soo bu ci fas yéene yéen it wax leen li nga xamante ni moom la mbir moomu tëddee ak li nga xamante ni lu bari fas yéene na leen ci daal di bett. docteur Alioune Niang maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo mbokku téléspectateur u 2STV. Euh, maa ngi lay nuyu Moussa di nuyu mbokku téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di rafetlu nag seen ñëw ngir ñu waxtaanee lu am solo lii muy infection pulmonaire. Mhm. ndax poumon kenn umpalewul njariñ mi mu am ci nit ndax ku noyyewul doo dund. Mhm. looloo tax ba feebar bu laal xëtër rek dafay nekk li nga xam ne lu am solo. Mhm. infection nag pulmonaire dafa nekk li nga xam ne euh, lu ñuy gis bis bu ne la muy ci mag ñi muy ci xale yi te nag dafa nekk li nga xam ne war nañ koo mën gëstu xam li koy indi seet naka la ñuy def ba moytu ko ku mu dalit ñu seet li nga xam ne noonu lañ koy faje jërëjëf kon euh, mbokk téléspectateurs yi déglu ngeen ko docteur Alioune Niang nekk pneumologue praticien docteur ñi ngi waxtaanee loo xamante ni junj nga ko sànq mu jëm ci wàllu xëtër mën nga ñu faram-fàcce tuuti rek ci ki nga xamante ni moom mu ngi seetaan nga xamale ko xëtër lan moom mooy importance am ak naka la mel. waaw xëtër boo ko seetloo dafa nekk ci dënnu nit. Mhm. moom moo tax nit di noyyi te ñëpp xam nañu noyyi. Euh, ban njariñ la am ci nit ndax boo juddoo yuuxu bi ngay njëkk a yuuxu mooy noyyi bi ngay njëkk a noyyi mhm. boo demee bay faatu it dinañ laaj nit ki ndegam ma ngi noyyi ba léegi wala déet mhm. te nit ki mënut toog ay jamono te noyyiwul mhm. noyyi nag dafa nekk lu am njariñ ndax mooy tax ba mooy dundal suñuy suux ndax mooy tax ba ngelaw li nga xam ni moom mooy dugg ci dënn bi moo koy boole ak deret ji nga xam ni moom mooy dem ci suñu biir yaram mhm. donc xëtër bi loolu lay jariñ mhm. fexe ba ngelaw li nga xam ni oxygène bi nga xam ni moom lañuy ñuy jëli ci ngelaw li mu fexe ba mu jàll ci deret ji nga xam ne moom mooy dem di dundal suñuy suux mhm. muy dundal fépp fi nga xam ni mooy cër ci yaram bi loolu mooy euh, njariñu xëtër waaw loolu moom nekk na lu am solo. Mhm. nit ku amul xëtër mënut a dund. Mhm. waaw d'accord alors gis nañu ni kon mu doon cër boo xamante ni am na solo ci dund doomu aadama solo boobu noonu mu am ak bu ñu xoolee lu jëm ci wàllu infection di ko laal tey est-ce que askan wu bari xamee nañu solo bi nga xamante ni xëtër am na ko muy poumon yi. waaw am na ñu ko ci xam. waaye am na ñu ko réere mbir. Mhm. ndax boo seetloo ni nga xam ni noonu la ñuy dundee. am na ci ñenn ñu bëri ñoo bu ñu xamoon solo bi nga xam ni cër cër boobu am na ko du ñu ko yàq benn yoon wala ju ciy def lenn li nga xam ne mën naa tax ba euh, liggéey bi mu war a liggéey du ko liggéey. Mhm. Euh, moo tax émission bi am njariñ ndax war nañoo mën a wan nit ñi solo xëtër ci biir nit. Mhm. ndax dafa nekk cër bi nga xam ni saabu feebaree rek laal cër yépp. Mhm. amul benn cër bu muy bàyyi. xëtër fu mu feebaree rek laal yeneen cër yi. Mhm. Euh, infection bi nga ci tudd nag dafa nekk li nga xam ne mooy bokk na ci feebar yi nga xam ne moom la ñu gën a nemmeeku ci luy laal xëtër. Mhm. moo nag mu am solo. Mhm. xëy na bu ñu demee ba ci biir dinañ la wax jan xeetu infection moom la ñuy faral di gis waaye nag xëtër moom soloom jéggi na day kon am na fu muy toll urgence lañ ko mën a tuddee. waaw urgence vitale la sax. ndax. comme ni ma ko waxee sànq nit ki bu amul xëtër mënut dund ndax nit ku noyyiwul doo mën a dund mhm. donc euh, dafa nekk li nga xam ne war nañ ko sóoraale ci lépp li nga xam ni euh, noonu li nga xam ne noonu la ñuy dundee mhm. ba nga xam ne fexe ba liggéeyam mu war koo mën a def normalement d'accord alors tey dañu poser ni tout savoir sur les infections pulmonaires tey yan xeetu infection yuy laal xëtër bi di poumon yi moo am waaw bu ñu waxee loolu dañuy jàpp ni rek lépp luy infection mën naa laal xëtër. Mhm. lépp luy infection ñu jàpp ni doomu jàngoro bi mën naa doon virus mën naa doon bactérie ci biir bactérie yooyu ñu jàpp ni mën naa doon xeetu bactérie boo xalaat muy doomu jàngoro tuberculose muy it yeneen xeetu doomu jàngoro yi nga xam ne gis nañ bokkul ak tuberculose. mën nañoo jàpp ni sax ay xeetu saan wala ay parasites yi nga xam ne mën naa dem ba laal xëtër mhm. maanaam xëtër daal dafa nekk euh, cër bi nga xam ne lépp luy infection ak lu mu mënti doon mën naa yegsi ba ci xëtër mhm. dinaay faral di dégg ñu naan de la coqueluche à la pneumopathie ce que mën nga ñu leeralal foofu tuuti waaw xam nga coqueluche dafa nekk euh, jàngoro bi nga xam ne infection la mais infection virale. Mhm. benn virus moo koy joxe maanaam njàmbataan. Mhm. Euh, xëy na léegi sax gisatuñ ko lu bari ndax ñàkku yi ñuy ñàkk suñuy xale. Mhm. mais njàmbataan boo ko seetloo ci ñi nga xam ne xam nañ ko bu baax bu la daaneelee euh, mën naa dem ci biir faj biñ ko war a faj dem ba bàyyi fa ay léget yi nga xam ne léget yooyu kenn dootu ko mën a dindi. ci xëtër bi mhm. loolu nag mooy tax ba ñu naan nga jóge ci infection bi dal ci ay beneen feebar bi nga xam ne infection bi moo ko fa bàyyi muy sëkkel yooyu muy liggéey yooyu nga xam ni coqueluche bi bàyyi na ko fa mhm. te loolu li koy faral liñ ci gën a nemmeeku mooy dilatation des bronches mhm. maanaam fexe ba yoon yi nga xam ne ci la ngelaw liy jaar yokku ba nga xam ne dootul mën a day tax ba mu doon beneen feebar bu fa Euh, coqueluche bi maanaam jàmbataan bi bàyyi. d'accord alors docteur su ma gisee tey jii nii euh, nit kiy dund nekk ci mbedd mi moo xam ci espace zone bi nga xamante ni environnement bi la nekk di évoluer nokki gi nga wax ni moom lay def te xëtër yi soxla lu demee noonu est-ce que mënuñu wax ni nos poumons suñuy xëtër dafa exposé à des risques. waaw euh, li nga wax dafa moo nekk liy dëgg. ndax boo ko xoolee à part der suñu der bii nga xam ni moom moo ñuy protéger. xëtër mooy cër bi nga xam ni moo gën a exposé maanaam gis nga gàmb yi nekk alvéole yi nekk ci xëtër yi. Mhm. bu ñu ko fekkee woon ñu tàllal ko dafay tollook maanaam terrain wu tennis. 80 mhm. mètres carrés ci loolu lay tolloon kon 80 mètres carrés day nekk surface bi nga xam ne dafay exposé wu ndax nokki boo nokki. rek lépp li nga xam ni mu ngi ci jaww ji mu ngi ci ngelaw li dugg na ci biir xëtër bi mm-hmm. moo lay wan ni la comme mënoo arrêté ci sa noy yi comme euh, dafa nekk li nga xam ni am na solo yow ci sa wàllu bopp jàppal ni saa boo noyyee li nekk ci ngelaw li rek ngay noyyi mm-hmm. bu fekkee ngelaw lu set la wala lu sell ngelaw lu sell mooy dugg ci biir bu fekkee ngelaw lu am poussière la poussière dina dugg ci biir bu fekkee ngelaw lu am microbe la di nga noyyi waale microbe yi donc dafay nekk donc cër bu nga xam ni dafay exposé. Mhm. waaw alors docteur loolu bu ma ko déggee damay tiit te sama xel day dem ci ñi nga xamante ni boobaa dañuy jëfandikoo lu demee ni sinébar wala ñi nga xamante ni dañuy tox lan nga mën a wax par rapport ak ñoom. waaw surtout nag ci wàllu tox laa laay wax. Mhm. waxoon naa ko sànq ci njàlbeen bi lépp li nga xam ne dafay ayibloo wala boog muy gàllankoor liggéey bi nga xam ni xëtër ma ngi koy def rek. Mhm. baaxul te bi nga xam ni moom lañ ci gën a gis mooy cigarette. Mhm. cigarette ndax yàlla dafa bind nit euh, ci biir xëtër yi mu def ci benn système bi nga xam ne mooy tax moo koy raxas. moo koy mhm. sellal boo looyee li nga xam ni setul ci biir xëtër yi bu fekkee dara feebaruloo defuloo dara yàlla def na fa mécanisme bi nga xam ne poussière bi daf koy génne. microbe bi daf koy rey. waaye boo jëlee li nga xam ne moom mooy cigarette système boobu nga xam ne moom mooy garder poumon bi moo koy sellal moo koy raxas cigarette boobu da koy yàq. Mm-hmm. kon nag da tax ba say xëtër lépp lu ñëw rek day dugg. Mm-hmm. waaw moo tax ba cigarette ñu bañ ko ci lépp. Mm-hmm. surtout nag ci wàllu xëtër. d'accord am na des pays à zone industrielle wala bu ñu xoolee tey jii nii suñu réew mi am na ci yenn bërëb yoo xamante ni tey yenn usines yi ñu ngi fa. ñenn ñi mën nañu exposé par rapport ak yi nga xamante ni moom mooy ay euh, euh, euh, moo xam ay produits chimiques yoo xamante ni nit mën na ko nokki ak yeneen ak yeneen est-ce que ñooñu tey bu ñu leen xoolee natt leen bërëb yooyu noonu ñuy nekk mënul am ak njeexital gu muy def par rapport ak seen santé surtout infection pulmonaire bi ñuy wax. waaw loolu kenn naa table ko. Mhm. comme ni mu ko waxee sànq boo nooyee ngelaw lu sell ngelaw lu sell loolu mooy dugg sa biir yaram. bu fekkee ne ngelaw loolu dafa nekk li nga xam ne dafa am pollué maanaam dafa am ay xeetu euh, tooke yi ci nekk mhm. muy ci usine yeeg muy ci euh, poussière bi muy génneeg muy lépp lu mu mënti doon loolu dafay am njeexital ci liggéey bi xëtër bi liggéey loolu moom euh, kenn naataab lawu ko mhm. ni cigarette di def noonu la produit yooyu di def ci xëtër. Mhm. xëy na nag cigarette dafa nekk li nga xam ni moo ci gën a feeñ. waaye am na ci ay yi nga xam ni nit ki bu ko mën naa yàq définitivement li nga xam ni moom mooy xëtër. docteur laata ñoo ñëw ci wàllu diagnostic bi naka ngeen koy diagnostiquer ñu bëggoon a xam ci xayma rek fréquence bi nga xamante ni yéen a ngi koy am par rapport ak consultation yi ak ñi nga xamante ni dañuy ñëw à l'hôpital tey bu ñu doon xool feebar yoo xamante ni surtout infection pulmonaire bi ñuy wax. ci askan wi tey ci ñan la gën a nekk à risque moo xam góor wala jigéen ak tey ji nii naka ngeen ko nemmee ko par rapport rek li nga xamante ni da koy faral di gis à l'hôpital waaw euh, ci ni nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee ci biir hôpital bi euh, gis nañu surtout service pneumologie bi nga xam ne ci lañu nekk mhm. gis nañ ni infection pulmonaire boo jëlee téeméeri malade juróom fukk yi infection pulmonaire moo leen fa indi. téeméer yi juróom fukk yi. juróom fukk yi wala lu ëpp. lu ko mhm. ëpp euh, infection pulmonaire moo leen fa indi. Mhm. bu fekkee nag dem nga ci service de pédiatrie yi euh, mën nañ ni lu mel noonu nga fay gis euh, ndax comme ni ñu ko waxee poumon dafa nekk organe bu exposé. Mhm. te infection pulmonaire dafa nekk li nga xam ne pour nga daw ko it yenn saa yi dina jafe surtout ak nii nga xam ne noonu la ñuy dundee. Euh, infection pulmonaire nag bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen. bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw waaye am na ñu mu ci gën a yab euh, mën nañ ni xale yu ndaw yi nga xam ne dañuy soog a juddu walla amaguñu ñeenti at ñooñu yab na leen lool ndax li nga xam ni moo leen war a aar ci infection pulmonaire matagul pour mën a xeex ak loolu. Mm-hmm. gis nañ ni yab na lool mag ñi ndax euh, cër boobu. looy gën a dem ci mag dafay nekk li nga xam ne dafay mag euh, euh, mag ànd ak sa yaram kon day dem ba nga xam ne cër boobu day dem ba màgget ba liggéey bi nga xam ne noonu la war a liggéeyee dootu ko def mhm. moom moo tax ba moom âge extrême yooyu muy xale bu ndaw wala boo demee ba màgget ci ñooñu la gën a yàpp d'accord euh, am na it li nga xam ni seetlu nañ ko ci liñ ci seetlu mooy ki nga xam ne dafay jëfandikoo tooke mhm. ak ki nga xam ne jëfandikoo kuwul ki nga xam ne day jëfandikoo tooke moom la ñu gis ni moom la gën a yàpp mhm. ci euh, ni nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ci biir hôpital. d'accord alors léegi bu fekkee nit ki ñëw na consultation diagnostic bi naka la ko praticien bi di poser pour xam effectivement kii lii moo ko dal. waaw euh, comme ni ñu ko waxee comme infection la doomu jàngoro bu dugg ci biir yaram la. Mhm. li ñuy njëkk a seetlu moom mooy euh, yaram wuy tàng. d'accord infection pulmonaire. Euh, yaram bi danaan ah am na leen li nga xam ne dugg na ci sama biir te bokk ci mhm. xeex boobu nga xam ni lay yaram bi xeex ak moom pour bëgg koo génne mooy indi yaram wuy tàng mhm. ñaareel bi màndarga bi nga xam ni moom la ñuy gis moom mooy nit ki dañuy gis ni mën nay saqat saqat soosu mën na nekk saqat su wow comme mën na nekk saqat su tooy ba nit ki di génne ay lor mhm. waaw ndax euh, yaram bi mooy réagir mooy wax bëgg génne eh, eh, doomu jàngoro bi dugg ci biir. Mm-hmm. loolu mooy tax nit kiy saqat euh, ñetteel bi mën na nekk nga yëg ay mettit ci wàllu xëtër bi. Mm-hmm. muy douleur thoracique. Euh, te fi nga xam ni foofu la infection bi nekkee foofu la ñuy gis ni foofu dafay nekk mettit mettit bi nag mën na nekk mettit bu tar lool comme mën a nekk mettit bi nga xam ne du la tee liggéey sa liggéey. Mm-hmm. ñeenteel bi mooy nit ki mën nay gaaw a sonn lu mu def rek sonn. Mhm. Euh, ñu naan ko Disney loolu it màndarga la bi nga xam ni dinañ ko faral ci gis ñi nga xam ne dañu am infection pulmonaire surtout bu fekkee ni ay xale lañu. Mhm. donc ñeenti màndarga yooyu daal moom la ñu gis ni moom mooy euh, yi ñu gën a seetlu ci ñuy am infection pulmonaire. Mhm. bu fekkee ni nag infection bi yàgg na ci yow mën naa dem ba nga xam ni mën naa wàññi sa lekk. mën naa dem ba nga xam ni mën na laa indil coono ñu naan la kii kat dafa ànd ak fatiguement wala dafa mhm. tooy wala mu dem ba nga xam ne euh, moom ci sa wàllu bopp daf lay jeexloo ça dépend rek ci infection bi ni mu la duggee d'accord alors dans quel cas la ñu mën a poser un examen de fibroscopie au cœur des poumons waaw xam nga fibroscopie dafa nekk li nga xam ne maanaam mën nañ ni télévision la mhm. télévision la bi nga xam ne day dem ba ci biir xëtër yi pour xool lan moo fa am Mm-hmm. bu xamee gisee lan moo fa am mu mën cee jëlee dara pour seet lii lan la. Mm-hmm. Euh, ci wàllu infection pulmonaire nag yenn saa yi euh, bëgg nañoo xam ban doomu jàngoro moo fa nekk. Mm-hmm. kon boo demee nga def fibroscopie bronchique boo demee ba nga xam ne gis nga fi nga xam ni fa la feebar bi nekk foofu mën nga faa jëlee dara te bu boobaa du nekk li nga xam ne euh, sa gémmiñ. Euh, infection yi nga xam ni moo fay nekk dina ko dina ko gàllankoor. Mhm. waaye nag euh, du ni bis bu nekk rek la ñuy def euh, fibroscopie bronchique mais yenn saa yi dinañ ko soxla pour mën a xam fan la feebar bi nekk ak ban doomu jàngoro moo ko moo ko def. d'accord docteur yow praticien nga pour na pneumologue nga. mutu matuwaay yooyu nga xamante ni laaj na ko yépp boo leen posé diagnostic bi examen yi nga xamante ni war na ci ci prise en charge bi alors naka la fas yéene demee. waaw Euh, ci wàllu prise en charge comme infection la euh, yàlla def na ñu am ay antibiotiques. Mhm. antibiotiques yi mooy li nga xam ni moo mën a rey doomu jàngara bu ci nekk nag am na antibiotique bi nga xam ni moo koy rey. Mhm. loolu moom gis nañ ko malgré que gis nañ ni léegi doomu jàngoro yi ñoo ngi commencé dëgër kiis. Mhm. ñoo ngi commencé dëgër bopp ba nga xam ni liñ daan faje bu njëkk léegi bu fekkee ni moom nga utiliser. yenn saa yi mën ngaa dem ba yaakaar ni sa faj bi baaxul ndax doomu jàngoro bi day dem ba nga xam ne dootu ko mën a rey mhm. mais yàlla may nañu ay antibiotique yi nga xam ne li ci ëpp mën nañoo rey doomu jàngoro yi mhm. waaw waaye nag am na ci ay infection wala ay germes yi nga xam ne yooyu ci biir hôpital yi nañu nekk mhm. ba nga xam ne comme yàgg nañoo euh, dajeeg antibiotique yooyu day dem ba nga xam ni antibiotique yooyu mënuñu ko faj moom la ñuy wax infection nosocomiale germe yooyu dafa nekk maanaam doomu jàngoro yi dafa nekk yu dëgër bopp mhm. mais nag yooyu li ñu koy gis bareetul mhm. kon daal ni ñu ko mën a tënkee euh, infection pulmonaire am na waaye am nañu it ay jumtuwaay ak ay garab yi nga xam ni mën nañ ko utiliser pour faj yooyu d'accord alors su ma la ci jukkilee lu demee ni tuberculose mhm. lan nga mu mën a laale ak moom feebar bu ni mel waaw tuberculose infection la. Mhm. infection fi nga xam ne bi mu gën a yàpp mooy xëtër. Mhm. xëy na sax comme ni ma ko waxee ca njàlbéen ba euh, doomu jàngoro boo gis mën naa andi infection pulmonaire mais tuberculose dafa nekk feebar bi nga xam ni moo ci gën a yàpp nag xëtër. Mhm. waaw ndax euh, dafa nekk doomu jàngoro bi nga xam ni moom ngelaw la bëgg. te ngelaw fan la ëppee ci xëtër mhm. kon mooy jàppal ni doomu jàngorool bi nga xam ni xëtër la gën a bëgg ci organ ciru nit ki moom moo tax buñ ko lënkalee infection pulmonaire bi nga xam ni moom la ñu ëpp ci li ñuy gis bi nga xam ni moom lañu gën a euh, maanaam def suñu euh, bi ñu gën a fixer suñu attention mhm. moom mooy infection pulmonaire bi nga euh, mooy tuberculose pulmonaire ndax tuberculose pulmonaire boo ko seetloo nit ñi sax bañ nañ ko ba nga xam ne boo nee dama am infection pulmonaire li ñuy njëkk xalaat mooy mhm. tuberculose ndax euh, ni nga xam ne noonu lañ koy gisee bis bu nekk ci suñu réew yi mhm. Mhm. alors mu laaj ay jumtukaay ak loo xamante ni da koy gunge ndaxte nee nga seen jubluwaay lu ci ëpp foofee noonu la nekk jamono jii tey est-ce que doon euh, wàllu tuberculose defati na tiit ci askan wi waratuñ cee tiit ndax lu tax ma ne waratuñ cee tiit ndax am nañu ay jumtuwaay yi nga xam ne moo ñu mën a tax ba ñu ni lii tuberculose pulmonaire te ci lu gaaw na mhm. waaw ndax nit ki bu fekkee ni xalaat nañ ci moom tuberculose pulmonaire maanaam muy saqat lu tolloog fukki fan ak juróom bu demee ci centre de santé yi dañ koy defal analyse u tëflit mhm. euh, jël ci tëflitam bu ñu ko xoolee rek dinañ xam ni lii tuberculose la wala du tuberculose mhm. xam nga loolu lu gaaw la te am nañ ci ay garab yi nga xam ne maanaam ay antibiotiques yi nga xam ne bu fekkee ni nit ki jël na ko tuberculose bi dafay wér kon feebar la tuberculose bi nga xam ne gaa mën naa laal xëtër euh, gaa bu njëkk tiitoon nañ ko waaye gisatuma ci lenn lu tax ba ñu war cee tiit wala ñu koy ragal ndax feebar la buy wér feebar la bi nga xam ne mënees na koo faj te du ayib sax xëtër yi mhm. complication yu infection pulmonaire mën a am par rapport ak aji ki nga xamante ni amee na ko. waaw complication bi ci jiitu moom mooy ci wàllu xëtër bi ça dépend ci infection bi nan la laale xëtër bi. Mhm. bu fekkee laal na ci tuuti ak bu fekkee ni dafa laal xëtër yépp mhm. euh, bu laalee lu bëri te fajuloo ko mën na koo ayibloo ndax infection na nga jàpp ni mën naa doon ay taab yu nekk ci biir xëtër bi. Mhm. te bu fekkee ni tuberculose la. mën naa gas ay kàmb ci biir xëtër bi mhm. kon bu fekkee ni seetaan nga ko mën naa dem ba yàq lu bëri ci xëtër bi ba bu boobaa mën naa indi insuffisance respiratoire mhm. euh, infection pulmonaire it mën naa gas xëtër bi ba dagg fa benn sidit ba nit ki saqat di tëf li di génne deret mhm. te loolu la ñuy ëpp lu ñuy gis ci wàllu tuberculose infection pulmonaire it mën naa génn xëtër bi dem nekk ci beneen cër gis nañu ki nga xam ne dafa amoon infection pulmonaire ñu jékki-jékki ba ci yàgg ñu ne ah yamatul foofu yegg na ba ca yuur ga dem na ba def méningite ci moom. Mhm. dem na ci beneen cër. kon loolu la ñu mën a jàpp ci infection pulmonaire mën naa am lu mu yàq ci xëtër bi mën naa indi benn complication dagg fa benn sidit comme mën naa euh, indi infec euh, euh, insuffisance respiratoire ba nit ki. dootu mën a nooyi ni mu waree loolu nag moom mooy yi nga xam ni moom la ñuy faral di gis infection pulmonaire nag mën naa lor comme ni ñu mhm. koy waxee bu fekkee ni li mu yàq ci xëtër bi dafa bëre lool nit ki dootu mën a nooyi te ku nooyiwul da ngay faatu mhm. loolu mooy li nga xam ni war nañ ko cee ragal est-ce que très lu demee ni ay abcès pulmonaire su révélé wu woon xëy na fi mu yegg noonu jéggi dayoo du fa yegg waaw loolu dafa nekk li nga xam ni war nañ ko xam nit ki bu fekkee teel naa jóg mhm. gis ni lii kat dal na ma maa ngi saqat dënn baa ngi metti xaaral ma dem kër docteur bu boobaa bu ñu defee rajo wala ñu def yenn analyse dinañ xam ban doomu jàngoro la. Mhm. bu boobaa dañuy jël garab yi jox la bu ñu jëlee garab yi jox la rek nga wér bu fekkee jël nga ko ni mu waree. Mhm. donc waratuñu tiit ci infection pulmonaire bu fekkee ni teel nañ koo nemmeeku teel nañoo gis ni lii infection pulmonaire te ñu bañ cee jéem dara. ndax mhm. nekkul li nga xam ne war nañ koo foyee. alors jamono ji tey gis nañu ni jeunes yi bi nga xamante ni eng ànd nañoo ak moom ñenn ñi nekk fougue de la jeunesse ak yeneen ak yeneen d'ailleurs même yaa une loi boo xamante ni jëm na ci wàllu tuxum cigarette ak yeneen ak yeneen bokk na ci ñoo xamante ni tey seen génération ak yu bëree bëri yoo xamante ni dañ koy def mu doon loo xamante ni day yàq seen i xëtër bokk na ci tabac bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex tey en tant que médecin lan nga mën a wax par rapport ak ñi nga xamante ni ñi ngi jëfandikoo genre yu demee noonu surtout pône surtout pône. Mhm. mooy ni képp ku koy jëfandikoo yaa ngi ayibloo euh, mécanisme défense su xëtër yi. Mhm. ba nga xam ni lépp loo nooyeeti rek day dugg ci biir yaram bi bu dee microbe la ci dugg bu dee tooke la dina ci dugg te am na ay étude yi nga xam ni génne nañu nit nit kuy tox cigarette Euh, cigarette boobu dina yàq ci poumon ba nga xam ni infection yaw lay gën a yab. Mhm. tuberculose yow lay gën a yab te boo amee tuberculose complication yi ci yow lay ëppee. Mhm. te bu fekkee ne am nga tuberculose nga faatu ci tuberculose day gën a yomb. Mhm. xam nga kon nekk na li nga xam ni def nañ ci étude xayma boobu def nañ ko. te euh, cigarette boobu am na yeneen yi nga xam ni daf koy indi ci poumon cigarette amul lenn lu muy yàq ci wàllu xëtër ba nit mën koo defar. Mhm. gis nañ fi ay nit ñi nga xam ne dañuy am ay bronchite chronique am na ñi nga xam ne dañuy am emphysème pulmonaire am na ci ñenn ñi nga xam ne dañuy am dem ba nga xam ne dañuy am cancer du poumon. Mhm. donc malgré tout ça li nga xam ne moom la ñuy wax ci ñuy jëfandikoo pon mooy ni ah nañ ko jéem a arrêté. Mhm. ci ni mu gën a teele ndax lépp li nga xam ne yàq na ko fa rek ñun docteur nañu ko def defar. waaw loolu moom war nañ koy xal ci nag lii nga xam ne moo ñu indi mooy ci infection pulmonaire. képp kuy jëfandikoo poone na nga jàpp ni infection pulmonaire dina la yàpp lool. Mhm. te bu yàggee di la euh, di fa di fa ñëw. bu boobaa mën naa ayib loo xëtër yi ba nga xam ne da ngay am insuffisance respiratoire. donc loolu moom mooy prévention bi. Mhm. maanaam ngir mucc ci ñu fas yéene defee doxalee noonu. leneen loo xamante ni teg nañ ko ci mu xaw a fal tuuti ñenn ñi nga xamante ni mucc ñu ci lu demee noonu moo di PNT ñëw na mu di programme national de lutte contre la tuberculose. Mhm. njariñam ak ban apport la am par rapport ak. yéet nu xeet yu demee noonu mu demee ni ay infection pulmonaire te ñu mën ci jukki lu demee ni tuberculose waaw PNT daf ci am ñaari taxawaay mhm. benn taxawaay bi moom mooy dañ ko dénk lépp luy xeex tuberculose mhm. te ñu xam ni tuberculose ci wàllu xëtër la kon euh, PNT dina ci bay waaram te gis nañ ko bis bu nekk li nga xam ni moom la ciy dox mhm. euh, indi na fi ay matuwaay jumtuwaay yi nga xam ni mooy tax ba ñu gën a gaaw a gis doomu jàngoro tuberculose bi indi na fi ay matuwaay yi nga xam ne moom mooy tax ba faj bi gën a yomb jël garab yi yóbbul ko nit ñi ba nga xam ne fépp foo mën a nekk ci Sénégal di nga mën a faju indi na fi ay matuwaay yi nga xam ne moom mooy tax ba euh, waxtaan ak nit ñi yee leen ci feebar bi ba du leen gaaw a dalal ci ci ni ñuy dunde ci ni ñuy lekke donc loolu lépp dafa nekk li nga xam ne PNT mu ngi ciy bay waaram mm-hmm. beneen wàll wi moom mooy ci biir PNT dafa am li ñuy wax approche pratique santé respiratoire comme dañoo gis ni tuberculose euh, ci xëtër la gën a ëppee ñu ni kat bu ñu yem rek ci tuberculose nañu fexe ba képp ku am beneen jàngoro yi ñu jaare ci PNT pour mën laa orienter nga mën a faju mm-hmm. euh, te bu dee beneen infection la wala beneen jàngoro bi nga xam ne dafa nekk ci xëtër mm-hmm. ñaari taxawaay yooyu la ci am moom mooy xeex ak tuberculose mais aussi euh, saxal fi approche pratique santé respiratoire bi nga xam ne liggéey nañ ci liggéey bu am solo. Mhm. ba nga xam ne euh, képp ku am beneen feebar ci wàllu xëtër PNT mën laa gunge ci loolu ba nga xam ne dinañu xam nan lañ lay faje feebar bi lan la ak ni nga xam ne noonu ngay def ba moytu ko. d'accord docteur Alioune Niang maa ngi lay sant di la gërëm ma bàyyi la nga tàggatoo ko téléspectateurs yi. waaw euh, li may mujjee wax ci téléspectateurs yi. moom mhm. mooy. ni infection pulmonaire gaa li ñu koy gis bare na lool. Mhm. te biñ ci gën a gis moom mooy tuberculose waaye soxlaatul ñuy tiit wala ñu ci ragal dara. Mhm. ndax bu fekkee ni topp nañu digtal yi PNT di wax képp kuy saxatati ba mu am fukki fan ak juróom demal ci centre de santé bi ñu seet ndegam lii tuberculose la wala du tuberculose. Mhm. bu ñu xamee ni tuberculose la bu boobaa yomb naa faj garab yaa ngi fi te doo ci fay dara. Mm-hmm. te am nañu ay centre de santé ay poste de santé yi nga xam ne teg nañ ko fa yi nga xam ne dañ leen di gunge ngeen mën a faju ba seen traitement jeex mm-hmm. te loolu lépp amul lenn loo ciy faj léegi sax am na yeneen yi nga xam ne moom lañ ci dugal mooy PNT indi na ay radiographie mobile indi na fi benn jumtuwaay bi nga xam ne moom la ñuy wax jinne expert moom laa koy wooye mm-hmm. ba nga xam ne ci ñaari waxtu mu génne la ni kii kat infection pulmonaire la tuberculose la te tuberculose bi mënees na ko faj wala mëneesu ko faj. Mhm. loolu PNT saxal na ko fii ci biir Sénégal kon li ma leen di diggal daal moom mooy nañu sellal ni ñuy dunde nañu seet suñuy yaram ci ni mu gën a gaawee. Mhm. nañu dem kër docteur pour que ñu mën a faj nit ñi ba dara dootul mën a ayib ci ñoom. loolu daal laa mën a am lu ma leen ci wax di leen gërëm yéen it jaajëf docteur euh, Alioune Niang di fàttali ni donc pneumologue le praticien nekk fii nii ci PNT nekkaale aussi hôpital fan waaw alors donc di sant di gërëm PNT ñoom ñi nga xamante ni ñoom it suñuy partenaire lañu ak urgence di sant tamit di gërëm seen coordonnatrice di docteur Marie Sarr. mbokk yi lii mooy li nga xamante ni moom lañ leen indi loon ci numéro urgence bi ànd ceeg suñu technicien yi nga xamante ni donc ñoom it ñi ñu topp boobu ba léegi rien que ngir fexe ñu am loo xamante ni moom lañ leen di jébbal ngir seen njariñ yee leen sensibiliser leen waaye xamale leen ak tamit li nga xamante ni moo di jàngoro te jàngoro mook nit ñoo dëkk fàggandiku ci rek moom mooy li nga xamante ni moo la ci muccal moo la ciy génne mbokk yi ci benn jamono ñu ñëw yéen ci beneen numéro urgence ngeen jëf